mu ñëpp ñu takku doon benn dëggal ko te mu wér dëggal gi nag mooy lu waay nekk bañ woole ci nga bàyyi ko ñëw dëggal sa bopp suñ ko defee yaakaar naa ne dina jur ñaari pàcc benn bu njëkk bi mooy daañu leen teg fitna ba Sénégal àdduna bépp xam ne li ñuy def teguwut ci yoon te suñ ci foncé li ñu bëgg danañ ko ci am beneen bi mooy li Mor wax Moussa Ba wax ko léegi mooy injustice bi moom wax ji sax defe naa ne jëral ko ndax ñëpp xam nañ ko kon dinañ wut un pôle d'avocat ñu wax ak ñoom engage wu ak ñoom lu mu laaj kàndaay volontaire def ko nekk seen ginnaaw ba liste bi danañ ko xeex ba du jàll wa ilaa même bu jàllee danañ ko rakale ba mu ëllëgee lu ñu bëgg ñu am kon maa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp jërëjëf jëf li fi nekk nag mooy commune bi douze candidats ñoo fi nekk Benno Bokk Yaakaar bokkatul warta bokk listam dañ koy rejeté quel que injustice warta dox ci dëkk bi soo gisee liste yi bëri mu am douze candidats parce que doomu Mbàkke yëpp ñoo jëkk ku nekk takk taxawu yaakaar na dëkk bi war nga ko a defar su ñu jógee nag démocratie dafa war a am équité dafa war a am ñëpp la ñu war a yamale waaye du ma nangu ñuy génne sama mag colonel Ali Mar di génne sama rak Serigne May Seck ci affaire parité di fi bàyyi liste benn bokk yaakaar bi nga xam ne di préfet da leen jàppale leen duñ ko nangu du fi am. juridiquement nañu jël ñi nga xam ne seen xel dafa màcc ci wàllu yoon. ñu topp procédure yi waaye combat bi dëgg dëgg dëgg ci terrain bi la ñoom daal lañuy jaay li ñuy jaay nañ leen wan ni population bi ànd ñoom loolu nag ku ci nekk ku ci nekk da am responsabilité gis nga li ñuy def nii dañuy lëndëmbal askan wi mais dëkk bi ànduñoo ñoom te la preuve boo demee quartier boo dem da nga xam dëkk bi ànd ñoo ñoom. lu leen yàq jaral nañu ko jaral ñun ñoom dañoo mën a yàq rek ak complicité de préfet parce que nañ ko wax lu leen yàq jaral nañu ko jaral bu jëree teg bakkan nañ ko teg. liste bi li ma gëm le 23 wul bokk ci liste yi teg ci taabal yi ñuy war yi population war a choisir. damay wax ne li ma gis nii. li ma gis ni déglu naa maître Babou qui est un avocat émérite déglu naa li mu wax déglu nañ expertise am mais am naa yaakaar ne li ma gis ak li ñu gis ci terrain bi duñ egg sax ci bennoo benn yaakaar di gagné xam naa ne victoire bi ci loo bi lay génnee donc ñoo leen di ñaan waa Mbacké combat boobu yéen a ko war a mëne yéen a war a mënee combat boobu ba nga xam ne mën nañ bañ a egg ci loolu parce que mbirum justice mbirum justice la mais le combat de faire de telle sorte que incha allah rabbi victoire finale bi mu bokk ci ñun ñii nekk fii. yëf yi xamoon nañ ne lii raam ci ñag bi la jëm lii raam nag dañoo njëkk a fekkatal waaye xamoon nañ ne ci ñag bi la jëm. le principal responsable ce n'est rien ce n'est personne d'autre que c'est irresponsable préfet et la commission cette commission là il faut oser dire la vérité wax leen dëgg c'est ce préfet là qui n'a pas été du tout responsable ay nit nañ lañ lay mën a indi li nga di ko xool di leen ko delloo ñu koy xool nga leen koy delloo ba bët set ku ci am erreur nga ne ko am na erreur ba accepter dépôt ci à temps réel na ñëpp baax na nga wëlbatiku ne diw baax lewu am na lu xew te la ko xewal xam nan ko ndax léegi dafa am ñoo xam ne nii ay teefonke politique lañ politique jaral na leen lu ne roccil fay nit muy def ay yu sew yooyu jaral na leen ko loolu xamoon xam nañ ko te à l'heure bu heure bi bu jeexee ñu ko def nañ leen attaqué parce que xam nañ les commanditaires keroog bi ñu dajee si hôtel bi nag lañ retenir woon plan d'action bii nga xam ne moom la ñuy continuer parce que dañoo décider ne Benno Bokk Yaakaar du dem ci élection yi pour mu ñàkk dem ci élection yi nag planning bii lañ tëral muy conférence de presse bi nga xam ne gis ngeen fi candidat yi nga xam ne ñoo war a dem ci maire bi muy douze autres candidats yëpp ñëpp ñëw maase nekk benn li ñu def mooy dinañ def chaque semaine danañ organiser ay sitting di ci woo population bi pour ñu ànd xeex list bi ñu xam ne liste bi warut dem élection Benno Bokk Yaakaar warul dem élection ci commune Mbacké loolu lañuy ñuy ci si sitting yi deuxième point bi dinañ demande ñu tenir ay élections libres et transparentes parce que préfet bi fi nekk wóolootuñ ko préfet bi fi nekk ak équipe bi muy liggéeyal waa Mbàkke wóolootuñ leen parce que dañoo wañ dañoo wane légèreté liste bii buñ ko càmbatoon xool ko parce que lépp dafa leer c'était évident mais la fait dañoo toog farek état bi nag moo tax erreur bii rëcc leen donc ñu ngi sant bu baax monsieur Jaxate yàlla moo ñu dimbale Benno Bokk Yaakaar warul bokk élection loolu la ñuy wax ci askan wi moom la ñuy wax également dans les sittings code électoral boobu ñuy wax nag dafa am benn article L 266 L 266 dafa wax ne dafa tënk ni nga xamante ni noonu la ab liste maanaam war mel pour jàll wala mu melu noonu ñu war koo ñàkk jàll irrecevabilité L 266 dafa wax ne liste yëpp moo xam muy titulaire. moo xam muy suppléant bu mu ci manti doon dañu war a jiital jigéen teg ci góor wala jiital góor teg ci jigéen man ku jiitu rek sa morom la ci war toog moo xam ci liste proportionnelle bi la walla liste majoritaire titulaire bi bu dee majoritaire titulaire bi bu doonee jigéen góor a ci war a topp bu dee góor jigéen a ci war a topp noonu lañ ko war a topp bu bu amul rek loolu dafay nekk irrégularité irrégularité mooy yoon wuñ tëral ne ñëpp nii la jaar nga lànk ne doo ci jaar loolu su amee yoon danaan kii dañoo war a wañ loxoom loolu nag ci ñaari anam la amee bi njëkk mooy bi mu amee rek l'autorité administrative bi nga xamante mooy présider commission bi ñoom ñoo waroon a rejeté bi comme ni nga xamante rejeté nañ ko sunu nijaay colonel Mar ak suñu jeune frère Serigne May Sène léegi bu fekkee loolu amul ba mu rëcc ba ñu tëj ba publier fañ ko mën a kare mooy bu ñu voté ba ci ngoon mandaté def lu ñu observation kayit goo nga xam ci la résultat yi nekk ñu def ci observation wane ne list Benno Bokk Yaakaar li article L 266 ci code électoral bi wax respecté wu ko segam respecté wu kon kon listam dafay irrecevable ci cas boobu nag bu ne cour d'appel bu Thiès li ñuy def lu yoon wax mooy am na irrégularité am na am na ñàkk respecté ndigal yi tax na list bi dañ koy brisé dañ koy daane du mën a jàll boo amee même bu fekkoon benn bokk yaakaar am na ndam sax du jàll parce que listam dañ koy désavoué même buñ ko gañee it listam proportionnel bi du mën am ay conseiller parce que list bi jàllul wante di defal mention spéciale les candidats ndax candidats yi ñu jaret delloo njukkal lañu ndax boo xoolee li nekk ci askan wi li fi nekk ci mbooloo ci Mbacké ay nit jóg jël seen alal jël seen xam-xam jël seen temps ne ñun dañuy jóg xeex wax pour jot ci mairie bi ku ci jot ci mairie bi lu baax rek nga ci jublu ñi fi toog ñëpp candidat lu baax rek lañ dog ku ci yàlla jàppale woon it nga jot ci mairie bi it la gën rek nga yaakaar ne moom nga ci war a def te moom nga ciy def.